gën a war a bàyyi xel mooy ne moo tax sëriñ bi kon bi muy tudd xam-xam moom wutalu ko frontière wutalu ko itam foo muy tàmbalee fu muy yem tudd nit ay xam-xam donte nag ci biir xam-xam bi moom xam-xam am njëriñ moom am na ay xaaj am na ay xel waaye dafa wax rek al ilmu an naafi xam-xam bi am njëriñ nga xam ne mooy bépp xam-xam. boo xam ne su ko nit ki jàngee mu mën koo jariñ ci diineem moo ca jiitu waaye mën koo jariñ itam ci àddinaam loolu nag nay xam-xam bu mën a doon waaye na nekk rek al ilmu an naafi moo tax yoonu wii di yoonu yeesal di yoonu woote ak defar nit bi mu koy tabax da koo tabax ci la sallallahu alayhi wa sallam tabaxoon lislaam rek te mooy xam-xam bu am njariñ ak jaamu yàlla jëfe xam-xam boobu ak li sëñ Muntaxa di firi te tey wax ne mag ñi àndoon sëriñ bi ñoom ñoo ko firee woon noona ndax dañoo dégg sëriñ bi te mooy al adabul mardi yi boobu mu ne mooy ak taalibe ak taalibe nee na ak ab yar ay teggiin bu ñu gërëm nee na mag ñi àndoon sëriñ Tuubaa dañ ko daan firee ak taalibe rek ndax ak jàpp naan lépp ci biir ndax xam-xam bee jaamu yàlla gi yëpp loolu bari bari su ko ay teggin lalut sa digganteeg sa borom. la nga ko sa digganteeg say morom suñu borom amu ci soxla moom fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ila al ada wa taabi ci tasawudu sigaar nee na xam-xam bi lu bari bari bari so àndut ak yar ak teggin coono ak lor rek lay jural borom moo tax mu ne murit bi rikwaay boo jógee di wut yàlla murit bi soobu yoon yàlla maa ngi lay bàyyiloo xel ñett yooyu bul ko sàggane soo amee loo ci loo koy ñeenteele mooy na nga wut sëriñ bu mat sëriñ te jox ko sa bopp te sëriñ boobu mat sëriñ sax nag dëgg du la wommat ma la ci bakkan du la ma wommate ci bànneex waaye daf lay ma ci xam-xam ak jaamu yàlla moo tax mu ne mu ne bi alayka bil ilmi wa bil amali ma te addubin murafiqan cheykhan jamaa cheykhan jamaa hadihi salaasa almadkurat شيخا جمع العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي ba tax mu ne kon murid bi yow maa ngi lay dénk na nga fexe ba góorgóorlu jàng na nga jàng jàngal ba bari xam-xam waaye booy sàkku na nga sàkku xam-xam bi am njëriñ soo amee xam-xam bi ba noppi it na ngay jëfe xam-xam bi di ko sellal ndax xam-xam garab la mooy cosaan li waaye meññeet ma nag sëñ bi nee na ci masaalik bi euh, mooy jëfe ko nag tax nee na ñaar yooyu nag bu ñu bu ñu bu ñu dajee rek bu ñu àndee rek nga mën a am texeg àddina ak texeg alaxira wal taalaman bi an ilman wa amal huma wasilata saadati ajal nee na li wér te wóor mooy xam-xam ak jëf moom ak jëfe xam-xam mooy yoon yoon yoon wi jëm wi jëmaleen ki ci texeg àddina ak alaxira moo tax mu ne kon na nga jàng te boo jàngee ba noppi na nga jëfe li nga jàng waaye nag na nga am yar ak teggin maata addubin waaye muraafiqan seexan jamaa na nga wut nag sëriñ boo xam ne am na xam-xam di jaamu yàlla te am ak taalibe ba noppi nag boole caagi ci yàlla nga xam ne mën naa defar nit ndax yooyu koo te di ko jëfe di ko doxal bu yàggee soo ko bàyyiwul da nga àgg ndax ñooñu yoonu taxe ni danoon mu kole kon nag sëñ bi ñu fa war a tegoon xam-xam xëy na tënk ci tënk bu gàtt danañu wane rek euh, li sëriñ bi jëmmale woon jàng jàng ndax ku wax xam-xam wax jàng al ilmu bi taallumi wal xilmu bi taxallumi jàng ba xam-xam ba la ko am da ngay jàng da ngay da xam-xam koy da koy sàkku waaye jikko ju baax it ba nga ko nga koy jéem da roy da ngay roy ku am jikko ju baax noonu mu waxee ci la juba ne soo gisee nit ay jikkoom yéem la nga bëgg mel ne moom bul yem ci yéem gi da koy jéem da ngay ida ajabatka xisaalu mriin fa kunhu yakun minhu maa yucjibuk ndax nee na falaysa ala almajdi walmakrumaat ida jitaha xaajibun yaxjibuk nee na boo gisee nit ki jikkoom yéem la rek kii sëñ Abdou Salaam mi kat boo gis naa ne borom xam-xam la nit ku baax la bu yem ci yéem ko rek jéemal a xool sëñ Abdou Salaam fa mu jaar ba mel ni mu mel jéemal a xool sëñ Nabi gaa ñi fa mu jaar ba mel ni mu mel ilaa xel sëñ sëñ imaam ba ci sëñ ñëpp kenn ku ci nekk jikko yu baax ya nga koy ñëwee soo bëggee mel ne moom léegi nga mel ne moom kon da ngay bañ a jéem da ngay bañ a yéem yem ci yéem tey jéem ñu bari sama classe dañuy yéem bu ñëwee di borom xam-xam ñu di nga ma mën a jaamu yàlla ñu ne see kooku moom naafila koor moo ko fi daq waaye ndax yaa ngi koy jéem yow ndax yow yaa koy jéem a roy waaw nee na saa boo góorgóorlu rek da nga da nga am kon nag euh, jàpp naa ne wane waat daara yi nga xam ne Cheikhul Khadim da ko taxawal. ci ak nekkam bi mu fi itam bàyyi ko fi muy law di law ba ci suñ jamono ji dana wone ba fii ñu nekk tey jii di Touba Zingonia gi di bànqaas bu wóor bu dëgër bu bànqaasoo ci daara yi Cheikhul Khadim jooju nga xam ne jenn daara rek la mooy daara jëm junjoon ca euh, bayit woowu ci limaahi bashirin bil Mustafa li bana al quddus madrasatan biha yazulu al ada wal jahlu wal kabadu wala wal kamadu madrasatan jooju dafa yaatu ma nga tàmbalee ca daara yi sëñ Mor sa Sali ja di wéy nag ba ci daara yi muy bëgg tudd nag ba ci daara jii ñu nekk tey jii yëpp ci madrasa boobu lay tàmbali ba ci université yii yooyu yëpp xëy na danaa ko tënk rek ci lu gàtt jox nag sëriñ Abdou Salaam mu détaillé Cheikh Khadim bi fi nekk ak way juróom di jàng di jàngale di jàng di jàngale ba mu demee ba gindi ci xam-xam yi dafa xam dafa xam ne bara barkeb xam-xam bokk na ci li koy gën a joxe mooy xamle ko moo tax mu teel a tàmbali jàngale teel a tàmbali taalif taalif na ci ñaar fukki atam ak ñeent ana sarbadin suñu gami nee na ci la taalif ay mawaahibul qudus ak yu mel ne moom nga xam ne ci tawxiid tawxiid bi gën a kawe mooy tawxiid takallum euh, ak yeneen téere yu mel moom nga xam ne sëriñ mu ànd sëriñ mi waajuram jàngal na ko sëriñ Afiya rakkam ak sëriñ Cheikh Thioro te boobu moom mi ci ñaar fukki atam ak ñeent bi sëriñ Mor Anta Sali génne àdduna itam mu wutu ko ci daara ji wutu lu rafet nag yor njàngale ma ab diir sëñ Saliou di ko léegi ba diir bi nga xam ne xëy na diir boobu absente la mooy bi mu demee Mauritanie di xóotalaat gëstoom ci wàllu yàlla ci wàllu yoonu yàlla ak ay wér ay sufe sufiyanke yooyu te ci diggante boobu sëñ Daam Abdourahmane Lo la jël wuutal ko ci daara ji ñu wutu ko fi diggante bi mu nekkee Mauritanie ci mbir soosu Sëñ Abdourahmane taalibe bu mag boobu nga xam ne dinaa tudd léegi daaraam ci moom la wuutaloon ci daara yi Sëñ Mor Anta Sali Joor nga xam ne moom la donn wala moom la ko euh, doon moom la doon taxawee ginnaawam alaykum salaam wa bi nga xamee ne euh, yàlla jox suñu euh, jox na sallallahu alayhi mu jox ko ndigal mu taxawal yoonu mu itam taxul mu bàyyi jàngale de Sëñ Tuubaa mës ta bàyyi jàngale mësta tëj daaraam mësta fay daara yi maanaam li ñuy wax euh, euh, taalu taalu taalu jàmm mësta am déedéet waxtu bu nekk da ko daan taal muy bërëx di gën a tàkk ndax waxoon ba ko borom daaru rakam ju baax jooju nga xam ne wax na mësta wuuteeg man ki sama ndaw mësta mësta tàqalikoog man ci ci ak ndawam mësta wuuteeg man ci ndawam wala ci magam waaye mësta tàqalikoog man itam ci ndawam ak ci magam waxoon na ko ne ko soxna yi neen dañ maa tuumaal ne damaa fay taalu jàngu yi ma bëgg leen di raxasal ma tuuma jooju moo tax borom daaru wut woon ko ci daara yooyu moo tax bi nga xamee ne Cheikh Khadim taxawal na yoonu te mooy nag yoon murit lenn lu may rek yoonu yoonu jàng ak yar yoonu jàng ak yar rabbi asaabaka bil himma wala turabbihim bi dars bi dars même bu ci faqat gi bokk doon itam rek du tee maanaam ñëw na ndax euh, bu bu ñu yamati la li muy firi moom su ma déggee bu gàtt mooy bu ñu yamati ci njàngaleem kese mi kese faqat gi xëy na am na ci solo waaye mooy ak bu bu ñu yemaate ci njàngaleen kese mi waaye boole ci nag di tarbiya mooy nag di jëfee njàng mi naka jekk ñu ngi ko doon defee naka jekk waaye nag na nga a ba lo nit am na ñoo xam ne sax xëy na njàng mii ñu miin muy tëral ay téere jël ay àlluwa di jàng ñoom weesu nañu ko te faaw dañ leen a war a defar ba ku leen gis mel na ñu jàng lañ mel na ñu am xam-xam lañ ñoo ñu itam ci te ci mbir mi lañ bokk te yooyu gis nañ liggéey bi Sëñ Tubaa liggéey biir dundam gépp dafa wéy di jàngale Sëñ Tubaa mës a bàyyi jàngale ci àdduna mës a bàyyi jàngale forme bi moo changé moo wuute waaye mësu ko bàyyi nam daan tërale ay téere di déglu ay ay ay ay ay ay dongo ñuy ñuy tari wala ñuy wax seen bind di ko di ko di ko jàngal di ko nafar bi mu demee ba ñàkk jotit wutuñu ko ci wuutu itam teewul téere yim taalif ci tagg rasulullahi ak wafaayaayi koo wafaayaayi rek sëñ sëñ sëñ dara gënu ko yaatu ci xam-xam ci ci njàngale tey jii suñu bokk yu baax yi am na ñoo xam ne jur nañ def ci liggéey am solo ci looxe ko ak tasaare ko te yooyu yëpp ci forme jàngale la burul ti siraar du jawharu nafis du naw ju xadaxil xaaj du yooyu am na yeneeni bind yoo xam ne Cheikhul Khadim bind na ko te yëpp jëm ci xam-xam kon daara jooju moo wéy ba jur daaray borom daarul nga xam ne sëriñ bi moom eh, yëpp ci ndigal dañ ko taxawale bi muy dem ci géej ku ne xam ne ne maam Thierno la bàyyee woon njaboot gi ak yoon wi diir bi Cheikhul ci géej gi ci tumuraanke gi juróom-ñetti at yu manqué yi Cheikh Mouhamad Abdullah ibn Abdirahman Alawi naaru xam ne mooy taalib Sëñ Tuubaa boobu te bari lool xam-xam te bind a bare bari ci moom ba wax ci borom daar ak xilaafa gi xilaafa gi mu wutoon Sëñ Tuubaa waxaale na ci loolu rabbal muridina wa aqra al banin an nujaba al azkiya tilka sinin nee na bon daaw li ko waral ci diggante bi Sëñ Tuubaa nekkee ci géej gi ci diggante yaru murid yi ak jàngal njaboot gi lépp def na yar na murid bañ ne nër mu jàngal njaboot gi yépp it bañ ne arr diir noonu ko Sëñ Amadou Fall daan waxe rek te ñoom ñaar Cheikh Moustapha ak Sëñ Amadou Fall ne xam na ne ci daara yi euh, borom daara lañ génnee ci wàllu xam-xam ci wàllu xam-xam xasala ilma ammihi lfahimi bahri l ulumi cheikh ibrahimi loolu lépp Mouhamad Abdourahmane moom moo ko moo ko woy wala Cheikh Amadou Fadal xam-xamu bàyyi taxam ba di di di maam Thierno moom la moom la jàng kon ngir bañ a guddal rek ma ma tënk ko ci gaaw rek ci ci ci daara yooyu bokk na ci daara yi nga xam ne moom la sëñ bi bàyyi mooy daara maam Thierno yooyu nga xam daara yi xam-xam la woon waaye daara yi sëñ Abdourahmane yi nga xam ne itam daara yi alquran la nga xam ne mooy cosaan bi alquran mooy maddatu kulli ilmi mooy cosaan bépp xam-xam am njëriñ lu ko sëñ bi jàngalee nga ne moom fa la njaboot gi ñun ñëpp ci njaboot gi rawatina taaw yi fa la njàngi ak ci njabootuk damaanaam dongo yi muy taalibe yu mag yi euh, boo demee génnee daaray sëñ daam am na daaray sëñ Mbàkke Buso al Azhar al Azhar sëñ Mbàkke moo ko sancoon ci wetu daaru alimul xabir ci ndaam googu euh, mu nekk daaray xam-xam moom itam ci ndigal sëñ Tuubaa lu jiitu mu sanc gere Azhar la sancoon moo magam ju baax ja euh, sëñ Cheikh Buso bi nga xam ne mooy taaw Euh, boo demee itam njaareem daara Cheikh Mahamad dem mu sëñ ma dem nga xam xam-xam bu mag la boo xam ne bi ñu ñëw ci Cheikhul Khadim boobu dafa fees dell di kaam fóore waaye gis nañ fi mu jaar ak Serigne Touba ba ba tànn liggéeyal Serigne ci xam-xam bari na ci doomi Serigne bi ñoo xam ne jaar nañ ci daaraam mën mën naa ci tudd ku mel Cheikh Abdou Khadir Cheikh euh, al imam ku ne xam ne ne ginnaaw bi mu bi mu euh, am njàngam ba sori juróom ci gënee sëñ Mbàkke Bousso Euh, sàkku na ci moom mu dem njaaraan ngir barkeelu ji ci daara yi Cheikh Mouhamad dem euh, ginnaaw bi doomam ju baax di sëñ Abdourahim dem wuutu ko fa sëñ Saliou itam moom jaar na ci daara yi sëñ dem ak lenn ci sëñ Tuubaa yi mën nañ ci tudd ñu bari waaye dañuy rek euh, bi bu jo boobu jàllee daara yi sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana nga xam ne moom itam kenn la ci produit sëñ Tuubaa bi nekkoon aminu sirri Cheikh mu nekkoon secrétaire secrétaire particulier bu Serigne Touba mu fekkee Serigne amoon na particulier mooy ku ko jege woon la mu daan diisoo moom di déggante moom ci biri biir moom itam daaraam ci wàllu xam-xam nag laay wax fii daari xam-xam yi euh, Serigne Lamine Diop Dagana yoroon na ko ni féete woon njaareem daaraay Serigne Abdourahmane Bousso moom itam ne muy euh, Serigne Dambar nga xam ne mooy waajuru euh, ki ki ki ñu xam bu baax di suñu mbokk Serigne Sam Bousso Abdourahmane borom xam-xam bu mag yàlla ko yàlla taxaw taxawu ñu mel ne moom daara sëñ baayam muy juróom bu góor sëñ ndaam mbar ñu koy wax sëñ sëñ sëñ sëñ Abdourahmane moom daara ju am solo yoo xam ne moom ci boppam sax bi sëñ Cheikh Amadou Fadal noppee ci jumaay Tuubaa ji te ubbi daarul maarif al islamiyya ci biir jumaa ji sëñ ndaam mii sëñ ndaam mbar mi bokk na ci ñii ko Cheikh Amadou Fadal njëkk a dénk mu di fa jàngale lu jiitu waaw ah, mu koy jox eh, alxaaji Mbàkke Jaxate nga xam ne tudd nga ko dem waaw moo ko fa jiitu même sëñ Bisou Limane itam jaar na fa Euh, jiitu sa alaaji Mbàkke Jaxate di ñëw kon loolu lépp day wane ne ñoom euh, daaray xam-xam yooyu lañu lañu yoroon daaray sëñ sëñ Abibu Mbàkke alimaam sëñ Abibu yaakaar naa moom ñëpp xam nañ ko moo xam ci mbul la moo xam ci Tuubaa la euh, nga xam ne bari na ci ba tey njabootu Sëriñ Tuubaa ñoo xam ne jaar nañ ci ay loxoom ak lu bare bari ci mag yi mag yi murid yi euh, yaakaar naa Cheikh Souhaïbou bu ci la bokk Cheikh Souhaïbou moom itam moom itam ginnaaw bi mu ubbi daara ju mag daara yi alquran ak daara yi xam-xam ci njabootu Sëriñ Tuubaa gis nañ ci ni mu ci ràññikoo ci fànn googu ci fànn xam-xam ak jàngale ak yar gis ngeen daaraam ñi li li mu produire ci ay borom xam-xam am na ci ñoo xam ne ay sëriñ Sëriñ Tuubaa la ñoo xam ne ñu xam di ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñu ngi génne ci daara Sëriñ Souhaïbou waaye ku wax it njabootu Serigne Touba gi ci wàllu xam-xam ak daara ak jàngal jàngale da nga xalaat jàngalekat bu mag ba yarkat bu mag ba Cheikh Saalix muy Serigne Saalix kooku it ku nga xam ne ne rolam bépp mission bépp ci addina moo doon mission Cheikhul Khadim moo doon jàng ak jàngale ak yar loolu moom yaakaar naa liñ ci liñ ci ubbi ci daara bari na lool liñ ci génne itam ay cadre yoo xam ne tey jii demuñu demuñu Arabie Saoudite demuñu Qatar demuñu feneen waaye macha allah tey ñu dem foofa ak seen i lijaasa yóbbuñ leen dara waaw mën nañu ne tudde ay doctores wala ñu tudde leen ay ay ay ay lettre wala ñu ci fànn yëpp nag te weesuwuñu diggante ngot ak njàppandal ak xelkom tubaa xelkom kon Cheikh Saliou itam liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy tudd naa ko léegi jumaa euh, ji jumaa Touba ju mag ji euh, en en 1963 bi ñu ko ubbee la ko Cheikh Cheikh Cheikh Modou Fadel def mu nekk moom itam daaray xam-xam ju mag a mag ba ci euh, daara suñu suñu suñu jamono yu mujj yi daara yu mag yooyu jur na yeneen daara danañ ko tudd daara lu mel Cheikh Abdourahmane moom moom it ku ne xam na ko ci di di ndaw ci waxin yi waaye maanaam par rapport ak mag ñooña ni eh, nga xam ne noonu la doon ne ci jàng ak le ak taxaw taxawaay bu am solo ki te saara xam-xam xam-xam def ko ci ay ay ay anam ba def ko ci anam yi nga xam ne sax dafa dëppoo jamono ah, di ko enregistré ci ay bande ci ay kaset ngir eh, nit ñi ci jariñu waaye ku eh, xam-xam Sëñ Tuubaa dafa woon xam-xam bi am njëriñ kon lépp luy jàngale xam-xam rek day dugg ci biir waaye ndax su boobaa day yem rek ci xam yi nga xam ne wala njàng mi nga xam ne njàngum cosaan la déedéet sëriñ bi dafa bëgg saa bu jamono di dox ñu dox di ànd ak moom fekk la la jamono indi itam ñu indi ñu ñu jël ko ngir boole ko li ñu amoon ci cosaan ngir mën a doxal jamono ngir mën a dox jëm ci kanam moo tax njabootam bu baax gi teel a dégg njàng maanaam njàngale moomu moo tax ku mel ne euh, sëtam bu baax ba Cheikh Amadou Mbacke muy Cheikh Cheikh Yéene Fatma ku ne xam na ne teel naa jóg ubbi ay daara bi mu gisee rek maanaam daaray daaray cosaan yi baax na lool am na njëriñ nit ñi dinañ ci génne waaye nag bu buñ ci génnee war nañoo dem jàngi njàngum addina mi boo xam ne njàngum diine mooy doon base bi maa am seen i lijaasa yi bopp ndax lijaasa sëñ wax na ko démb loo mën a jàng boo amul lijaasa it am na it am ne doo fa mën a àgg te réew mi ñëpp ci bokk ñu ñëpp ko bokk tax mu daal di jóg bi ay daara boo demee fële ci ñaareel ñu ñuy jaar nañ fa eh, daara yi sëñ Cheikh Yelefane ma am na ay cadre yu mag yu bari yoo xam ne daara lañ génnee eh, dem àggale seenu njàng ca kaw eh, ci maanaam bitim réew moo tax bi ko eh, kenn ci borom xam-xam yi jamonoom di tagg di wane di ko kañ di wane taxawaayam ci xam-xam muy alxaaji Maodo Touré mos ñaari Touré nga xam ne moom itam kenal xam-xam la woon kenn diine la woon dafa ne si seex day xat xaarabal jëhla xat xaarabal jëhla bi sayfi ilmihi wa xaarabal faqra bi faydi juudihi waaw da da ko tënk ci ci ci béy bu gàtt dafa ne sëñ Cheikh xaraama réer ko ndax boo nee xam-xam rek wax na réer réer mooy safaan bi te mooy noonu noonu bi gën a mag noonu maanaam développement mooy réer waaye nag ngan naa li ñu war a jëfandikoo nag ngir saxal développement mooy xam-xam moo tax mu ne sëñ Cheikh génn faat ma xeex mu réer ci lu mu ko xeexee ci jaasi yi xam-xam loolu sëñ Saliou Dia wax léegi ne maam ju baax di Cheikhul Khadim moo wax ne inni ujaahidu bil ulumi amit tuqaa loolu la dégg moo tax mu day jihaat ci xam-xam ak ragal yàlla te muy jikko ak jàng jàng ak jikko ju baax moo tax mu ne si seeg ne fànn xare na réer ba jëlee ko fi ci jëlee fi xam-xam waaye xare na itam ñàkk ak ñàkk mi ko xare ci tab ak liggéey ba nit ñi mën a am am xëy si euh, seex moomu wëy juróom baax wi nga xam ne nag tey mooy nekk xam naa dañuy mujjee ndax moo jur li lépp tey di góor yàlla Cheikh Mahamadou Moutaba moom ku ne gis na fi mu jëlee njàng ak fam ko ku ne gis na ko bi mu ñëwee fekk fi njàngum cosaan moomu sëñ Cheikh def loolu mu def waa kay jërëjëf sëriñ Cheikh Mourtada daal di jóg moom itam laxasaayu daal di tabax ay école yoo xam ne da koo tuddee mu mu assasatul azhar al mooy cosaan xam-xam mooy dat xam-xam bi nga xam ne moom développement mu tàmbalee mu assasa mooy loo xam ne day boole ay mbir yu bari yu bokkut waaye la ca jiitu moom mooy xam-xam am xam-xam jiitu xam-xam ci jiitu moo tax mu ubbi daara ne xam naa suñu sëñ si islam nit ñi xam ne fu dëkk nekk ci Sénégal muy dëkk bu mag muy dëkk bu ndaw def na fa daara wala ba dëkk itam nag lépp lu ca aju lu ca war ci fay jàngalekat yee ci taxawu leen ci dëkkal leen mu di ko def ba tey jii ñun ñi ngi wax ak yéen ak ñeneen ñu mel ne ñun ci daara Cheikh Mourtada yooyu yooyu ci lañu génne jaar nañ ci ba incha ba barkeelu ci kon loola day lu mat a bàyyi xel nga xam ne euh, liggéey bi mu ci liggéey liggéey bu rëy a rëy la ba defe naa ne xëy na statistiques yi bañ a di aventure waaye buñ ci ñëwee dana gën a dana gën a leer bi mu fi jógee en en 2004 li mu fi bàyyi ci nombre ay élèves ak ci nombre daara bàyyee ko nag si Maam mi nga xam ne moo ñëw te mujjewul puso ba mu réer. ku ne gis na taxawaay bi mu ci taxaw bi mu ñëwee xam ne ku yokkul da ngay wàññi mu ne kon du ma du ma du ma yokk du ma yem fi sax mot laa yemoon mais yokk lu jiitu muy xalaat université li mu njëkk a def mooy gàttandu université ndax université du loo xam ne day xëy xëy rek sotti du ab tabaxu kese rek te tabaxu kese dafa laaj wàllu pédagogie bi rek nga xam ne liggéey bu rëy la bu bu gudd boo xam ne laaj na lu bari bari mu ne naa gàttandu université boobu ci créer ay centre d' ay centre d'excellence yoo xam ne euh, ba bu yàggul woon rek faculté yi ci mujj ubbi ñu ko ubbee Saint-Louis ah tàmbalee ci biñ biñ njëkk a ubbi Ndakaaru muy bu Cheikh Moutouba bi nga xam ne moo nekk Mbao ak yi bi nekk Bambey boobu sax yaa fa nekk moo fa boo ko jëlee waaw macha allah ak yi mujj a ubbi euh, Saint-Louis yooyu yëpp di ay di ay centre d'excellence yoo xam ne bi université bi ñëwagul fa lañ doon former ñu war a dem ci université bi nga xam ne dañuy seet dong yi gën a xereñ ñi si dàll wa gën a sori ñi seen gën a nàcc macha allah ñu jël leen dugal leen ci centre d'excellence yooyu kon loolu liggéey bu réy réy boo xam si maam moo liggéey na ko bi université bi ñëwee itam nag ma gis ngeen ko mu tàmbali ko def ay ay ay ay faculté centre d'excellence yooyu Euh, attaché ko ci université bi tàmbali ki def ci liggéey bu rëy a boo xam boo xam ne tey incha allahu taala bu ñu ko bu ko yàlla dimbali rek yàlla ko yàlla dimbali taxawu ko bu ñëwee ba ci kanam danañ gis résultat bi mu nekk résultat bu am solo kon loolu itam moom it ji taxawaayam ci wàllu xam-xam gis nañ ko tënk rek bu mujj bi nag mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha moom it mu liggéey bi mu ci liggéey ndax euh, naari Sëriñ Tuubaa la waxoon waxoon naa ne madrasata ba ba ma waxoon ca ca bay dóor moo tàmbale woon ca daara ismu insan di ñëw ba ci suñu jamono ji moom it mu ne danaa bay sama waar ba muy teg keroog xeeru complexe universitaire bu Cheikh Cheikh Khadim Cheikh Ahmadou Khadim dafa wax ju am solo dafa sëñ Tuubaa liggéey bépp mooy yëkkati kàddu gu yàlla gu kawe daal wax ne te liggéey boobu wërta laal suuf man mi war naa ci nekk fi ba jóge fi yàlla fi yàgg lool ba ubbi ko nag ak te te te ñu ànd ko moom keneen ku ñëw it waroo fexe dara mukk ba liggéey boobu di laal suuf moo dañu ñëpp dañoo war a taxaw kalimatullahi hiya al ulya al ulya kaddu gi yàlla wax ci nekk day kawe du suufe mukk kon liggéey sëñ Tuubaa mooy kaddu gi yàlla loolu moom moom moom la Cheikh Mourtala doon doxee moom la Cheikh Moustapha doon doxee njabootu sëñ Tuubaa gëpp loolu lañ doon doxee Cheikh Mountakha mii loolu lay moo tax mu taxawal complexe complexe la wax boo xam ne du universitaire kese waaye da koy tàmbalee ci base bi base bi njàngum daara njàngum majaalis mi li kon ma ko doon limee léegi ba ci njàngum euh, maanaam li li nga xam ne mooy cycle maanaam primaire bi lu mel ibtidaaiya i'daadiya saanawiya ba ba rek àgg ca ñu baxta yooyu yëpp insha allahu taala ko ñaanal yàlla yàlla taxawu ko te dimbale ko taxawu njabootam bu baax garab bu baax yi nga xam ne ñu ngi dox jéego yooyu ba ñoo itam fañ bëgg a liggéey bi ñu àggale ko fa loolu nag bokk rek moo andi li moo judd lii suñ mut laa daara ji fonkoon na ko lool seen wàññi gi joxoon na ko cër lool daan na ko xel lool itam te wax naa ne du lenn du du kër du fu ñuy nekk di fi noppaloo waaye daara gis ngeen suñu jàmbaar yu baax yi fi nekk waxtu nekk ñuy bàyyi seen liggéey di bàyyi seen yitte di fi xëy si di jàngal doomi doomi jullit ñi ak doomi taalibe yi kon waxtu jëpp rek foofu rek lay daanoo mooy bu ñuy bu ñuy indi misaal yi daara yi ak borom xam-xam yi ak li suñ tubaab sonn ci xam-xam du dara lu may ñu xam ne murit dafa war a jàng doomu murit dafa war a jàng doomi tijaan dafa war a jàng doomi xaaj dafa war a jàng ndax fii yaakaar naa ku fi ñëw di jàng duñu wax ne murid bee ko fi jànge ndax Cheikh Mourtala amul woon gisin bu gàtt boobu moom kër sëñ Tuubaa kër lislaam la ko daan tuddee comme kër lislaam la kon ay daara la kon ay centre culturel la et de formation yoo xam ne tey ku fi génne mën ngaa dem ba macha allah am na nag résultat nag xeew ñu résultat bi nag ndax gis nañ ba gis loo xam ne sax néewaa na nga dem fekk ko ci yeneen dëkk yi ci Italie ginnaaw Brésil moo ñu ngi ndax dem nañ ba formé ay jigéen yoo xam ne tey su fi jigéen bàyyi te loolu moog dund bi ànd nit ku ne fa nga dundoo fa fa fa nga nekk ngay faatoo fa ngay feebar fa la lu nekk di dabe kon yàlla na waaye am nañ fi tey soxna yoo xam ne tey bu jigéen faatoo duñu woote duñu woote ci ay naar wala ay pakistan wala yenn ay ay pakistanais ay sénégalais ay jóg bokk ci ñu ñu daara ji formé leen ñu dem taxaw leen defal leen seen fardu kifaaya ba mat sëkk ñu delluwaat ci dégg ci maanaam ci liggéey ba ak yeneen ak yeneen kon daal yaakaar naa ne sëñ bi euh, loolu laa bëggoon a wane bu loo xam ne résultat am na nag xeebuñu ko waaye dañoo bëgg ne mu gën a yokk nag kon ñi fi nekk taxaw njàng mi xam-xam yàlla na yàlla taxawu te sàmm leen sëñ Abdou Salaam kon mu jox la nga incha allahu taala tënk waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah.